yaa jëf jëf def ngeen signature contrat bu neex macha allah wane waat nga sa bopp ni yaa saf xale yi yaa saf mag ñi yaa saf mag bi yow. dëgg la dëgg la mais noonu la doom lay yàlla bu defee lenn li ci yow da nga koy sante rek ba pare xam nga waaw seere ko seere ko xam nga tey succès yombul am na ñu koy am jaare fa yàqu waaye am na ñu koy am nag jaare fa baax. waaye sëñ Tuubaa daf maa boole si ñi nga xam ne nag dañ faa jaaree baax kon maa ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax. nga ñëw Sénégal journée bu mag am dimanche dox ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang en tant que koo xamante ni mbër nga boo ma doon analyser ci combat boobu loo may waaw lamb lamb boo xam ni neexul xam neexul gis parce que Boy Niang nañ buñ ko xeeb lim toll noonu doole jëpp na noonu Tapha Tine tamit du gaaka. te dafa am fu mu jógee am fu mu bëgg dem gis ay moroomam di lekk ci millions yi mu toog benn place rek xale yu ndaw di ñëw di jaar ci kawam rek di jàll du nangu loolu te booy Niang tamit day bëgg am ndam parce que bu dara Ama dafa daan tafaati te booy Niang ak Ama ñoo bokk koñ bokk dëkk bokk gox fépp bokk luñ fay représenté te Boy Niang loolu du ko bëgg tey daanoo daanu moom leneen la koy jaral boo doon yab Boy Niang ak état de forme bi mu yor lan nga koy wax nan la mën a bëree ak Tapha Tine ba daan ndax Tapha ci kaw xeex moom sàcc ko ci suuf loolu la mën a bëree ak moom ak déplacé wu fexe ba Tapha Tine topp waaye Tapha bu muusee bañ koo topp écran ko wàcc ko ci suuf jël na ko tàllal ko teg ko ba daan mooy wàcc ba ci ba ci suuf jël loxo bi laa wax écran ko ci kanam bi. nëbb ko kanam bi yoot ndànk bu ko woowee ci xeex ci kaw mu bañ koo wuy si daw ba jàpp Tapha Tine tànk jàppul bu xeex te bu jàppee rek gëm naa ne làmb jeex yéen géejawaay dégg naa kenn nelawatul ndax yéen a ngi waajal le premier janvier Bombardier le B52 de xam nga ni Balla Gaye 2 ku naan kenn nelawatul instant bi boo demee Géejawaay fekk ko mu toog ci buntu kër gi di reer wala mu toog di naan caayin muy naan gerte lekk gerte. kon da ngaa bëgg a Bombardier du dara ci la incha allahu rabbi yàlla dinañu may ndam. tuuti foo teg loolu. moom moo la gën a xam ni paa la. paa la te moom nga bëri loolu mu daal. Bombardier yàggul dara gis naa ko. sikim bi xanaa gisoo ko yii. gisuma ko Balla loolu Balla dafa tooy. soo Balla xanaa ni sikkim bi ni naayee. mais combat boobu xeex ak bëre lan moo ci avantage bu lépp lépp la indi. waxoo lii ci Boy Niang Tapha Tine de. kan bokkul ñoom daa bokk qualité Balla Gaye daa bokk kenn qualité si dama. Balla Gaye bokkul ak kenn qualité. Balla Gaye làmb ji moo fi mën moo fi doole moo fi mën moo fi gën a dal xel moo fi ëpp avenir. fan yee dama gis sa statut nga def sa diggante ak Zoss taxaw na loolu da nga koy confirmé wala da nga doon wax rek. man defuma ko de nit ñi ñoo dem monté loolu def ko fépp yónnee ko nit ñi nit ñee ko monté talu woon loolu maa ngi woon États-Unis nit ñee sentir loolu waaye léegi pourquoi pas sax bu nit ñi sentiree Zoss duñu bëre Zoss mooy kan. Zoss yàgg na fi dëkk mbër Zoss dëkk bi mu xamee ne mënul sotti la toog yama Zoss man ak moom combat bu neex la bu dee lépp ëpp ma dara Zoss ëpp ma doole ëpp ma xaalis ëpp gënu ma dal xel ëpp ma daraja ëpp ma fulla ëpp ma fayda ëpp ma lenn mu am naa a laaj ko ci la yoonu la bu ma neexee dama koy laaj léegi dama koy laaj nit ñee monté xam nga nit ñee monté ko. mais man léegi maa koy laaj Zoss dama bëgg ñu bëre parce que lii ma gis nga bëre dal na sama xel. tout ce qui yow da ngaa yeb parce que Zoss naanaan bi mu doon bëre Alioune Seye 2 am fa erreur wala rectifier erreur am nga koy laaj parce que du daa jàpp ni da nga wala da koy léegi Zoss lan la ma ëpp si làmb ji instant bii. moo ëpp tur moo ma lan ëpp tur. yow xanaa kii dafa dof. pour làmb. yow xanaa da dof. Zoss jii dafa ma wax ay turu làmb ak turu musique. tur tur rek la. naan moom ëpp combat moom ëpp combat mais jamono ji kan moom ëpp tur ci réew mi waxalal yàlla. ci làmb ci làmb. làmb naan moom ëpp combat nangu nangu naa mais jamono ji réew mi ñu kan moo fi gën a influent Ketchup ëpp ko tur ci dëkk bi amul. lan la ketchup bi bokk te du neex. amul kon maag Jos day neex. du neex lu tax. Jos mu raw du ku ne nit raw na fi. Balla Gaye moo raw Boy Niang dellu jël ko. dañu waxante dëgg guy gi moo raw rek rek dellu jël ko dañu waxante dëgg. kon da ngay ñaan saas. waaw léegi maa koy ñaan saas. ak sévère nag. du ñaan saas boo xam ne ay yolomal de. saas damaa bëgg lu bëri saas laa lay ak sévère. mu xeex non man. ñeme ko ah, ma nii de. jàkkaarloog man di xeex déedéet mukk si àdduna kenn du man. booy man géej waay laa nekk. géej waay fi ma rampé ba jàll. neexut a xuus. roi des xam nga dama toog états-unis nekk samay bagage booy yi monté seeni affaire dugg si ay TikTok mu toog mu ne man maa ko tooñ na ma. baal naa ko nag jégal naa ko tooñ na ma tooñ garaaw mais naa ko ndax man yëguma tinu ma monté nañ jox ma monté jox nit ñi monté yónnee fépp ñu ne lii dëgg la ma ne leen ah lii du waaye bëgg naa ko nii nag loolu moo ma yëkkati nii ba ma bëgg ko gaa yi fi nekk yëpp di wax laa bëgg jël leer na